salaamaaleykum mbokk yi ñuy bàyyi xel fii si Jokko TV bu dee gan nga si chaîne bi invité naa la à ce que nga abonné te nga bës cloche bi ngir nga mën a jot les notification en temps réel Ousmane Sonko dina bokk si élection 2024 wala du si bokk ñile di magistrat yi si ñaari article yi nañu tënku ngir càmbar ay dossier Ousmane Sonko moo di article L29 ak article L30 ñaari article yi ban moo ci libéré Ousmane Sonko ba mu mën a bokk ci élection yi ak ban article mooy tënk Ousmane Sonko ba du mën a bokk ci élection yi article L29 mi ngi naan condamnation boo xam ne dafa ànd ak sursis c'est le cas de Ousmane Sonko condamnation avec sursis su matee 6 mois plus un jour doo mën a bokk ci élection yi c'est-à-dire 6 mois et supérieur mais bu fekkee dañ ni mois strictement kooku dina mën mën a bokk ci élection yi te Ousmane Sonko condamnation six mois la avec sursis donc article L29 mënul xañ Ousmane Sonko mu bañ a nekk président deux cent millions yi nga xam ni moom nañ ko amaan article L30 du code moo koy wax article L30 dafa ni bu fekkee condamnation bi sans sursis la ba pare ñu yokkal la ci deux cent millions doo mën a bokk ci élection yi mais ñu leeral leen ni Ousmane Sonko kenn defu ko condamnation sans sursis mais condamnation avec sursis lañ ko def article yi di L29 ak l gisuñu benn article boo xam ni moo war a mën a tënk Ousmane Sonko ba du bokk ci élection yéen mbokki internautes yi nuy seetaan képp ku ci am xam-xam nga mentionné ko ci commentaire yi ñu dikkaat beneen vidéo daal di koy waxtaanee ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.